alors Abdoulaye FMI confirmé nañ ne que dette bi dafa gën a yokk au même moment euh, compte courant bi également déficit bi dafa gën a xóot est-ce que loolu rek c'est pas inquiétant. oui bon man euh, je sais pas peut-être que statistique yi euh, Moubarak moom ni mu koy liiree ak man ni ma koy liiree dafa xawut euh, bokk parfois moom wala bokk daf ma gën a optimiste euh, man dama jàpp ne euh, situation endettement bi ñu nekk nii. war nañu tiital quand même euh, responsabilité yi dañ ko war a situer parce que xamoon nañ ko ñu koy def euh, pour man d'abord taux bi mu wax 53 pour cent yi mu wax ni euh, en fait bu fekkoon ne euh, niñ ko doon jàngee boobu ba léegi dañ ko bàyyi noonu dina ko dépasser bu yàgg ndax dañu changer base bi maanaam calculu PIB bi dañu yokk Sénégal dafa yokk PIB bi donc dénominateur bi bu yokkee rek maanaam taux bi day day wàññeeku donc bu fekkoon ne taux yu yàggee la mën naa am sax 70 pour cent yi dépassé nañ ko. donc déjà loolu il ñu wax ko donc ñun suñu taux bi daanaka taux bu ñu liggéey la bu ñu buñu ñu parce que xamoon nañ ne dañuy endetté wu beneen affaire bi mooy su fekkee da ngay leb euh, lii tax leb boobu baax ci réew mi mooy da nga war a mën a indi croissance maanaam yokkute goo xam ne di nga ci mën a fay say bor maanaam di nga ci am ay recette fiscale ba fay ci say bor. loolu la ñuy wax euh, un endettement sain te croissance te te bi ñu gis nii malheureusement nee nañ am na croissance 7 pour cent mais amul yenn recette yu mu généré ba ñu mën ci fay suñu bor donc endettement structurel la boo xam ne day continuer loolu baaxul. maintenant beneen aspect bi mooy tey dañu waroon euh, endettement moom benn état mënu ko bañ a def mais nag ñu fexe ba mu nekk une politique de finance publique boo xam ne dina générer croissance bu saine ba nit ñi mën ci dund. tey booy xool euh, booy xool PSE d'ailleurs PSE échec la bu leer parce que axe un bi dañu waxoon euh, transformation structurelle de l'économie aujourd'hui 2014 à 2019 cinq ans économie bi transformé wul donc loolu il faut ñu wax ko Sénégalais yi wax ne économie bi transformé wul donc dañuy continuer di endetté wu malheureusement di ko def ci secteur yoo xam ne nii c'est pas des secteurs yuy changé structure dette bi parce que booy xool tey secteur primaire mi ngi ci 15 pour cent à peu près 15 pour cent et ça emploie plus de 50 pour cent des Sénégalais donc téeméeri nit yoo gis juróom fukk ba ñu ngi ci mbay mi ak li jege mbay mi napp geeg yu demee noonu te fukk ak juróom ci téeméer bu nekk rek lañ am ci koomu dëkk bi xam nga loolu dafa garaaw euh, nga ñëw jël secteur tertiaire. nga xam ne daanaka ñi nekk bitim réew ñoo ko moom mooy entreprise de télécommunication yeeg yu demee noonu commerce bi dañ ko ciy dugal mais commerce bi xam nga am na ñu ko gën a am ku dul sénégalais yi en tant que tel en tout cas doole bi nekk ci commerce bi loolu à peu la donc loolu sénégalais yi téyewuñ ko donc tey booy xool li ñu waxoon ne transformation structurelle de l' économie 2014 ñi ngi woon ci 15 pour cent agriculture 2019 ñi ngi ci 15 pour cent donc presque dara changé wul ay différence su zéro virgule quelque point la donc tey économie bi changé wul euh, structure de prélèvement yi maanaam ni ñuy jëlee lempo yi changé wul façon bi xoolaatuñ ko endettement rek lañ mën def parce que population bi dafa yokk mhm. malheureusement endettement boobu waroon nañ cibler ay secteurs yoo xam ne day jàppale population bi ñu def ko ci mais ci infrastructure lañ ko def te infrastructure yi société yi koy gérer bitim réew lañ jógee euh, Euh, ci ci ci dette lañ koy lañ koy gérer donc dañuy jël xaalis di yóbbuwaat bitim réew muy gën a détériorer suñu balance de paiement ni nga ko waxee sànq malheureusement loolu situation boobu lañu nekk donc Sénégal pour man dañu war a càmbaraat suñu économie ñu def ay rupture émergence bi ñu wax su fekkee ne bëgg nañ ko il faut ñu xoolaat li ñuy def